lacrymogène yi daw na boo yaa ngi noonu ngi noonu xeex bi gaa yaa ngi noonu seen ñëwal lii sen seen ñëwal ñëwal ñëwal sen seen seen boo yaa ngi xeex ba léegi seen seen ñëwal nii dawal jógel foofu jógel foofu seen problème bi métti na ñu koy diñ nag ne nañ waa Khalifa Sall la manifestation bi buñ organisé woon fii pacifique mu jël mujjul nekk pacifique mujjul nekk pacifique ndax nee nañ waa xalifis yi ñoo ñëw fii yàq ko nen nañ bar Barthélémy Dias leen yebal ñun na xamuñ si dara seen yéen fii dafa mujjee indi coow seen leader yaa ngi noonu maître Clédor a ngi na le seen maître Clédor a ngi ne maître Clédor maître Clédor mii laay xool lan lay wax doy na waar de. mais dañ dem dëkk suñu ay micro ñenn. Mhm. ñu gaa ñenn Sénégal ñu xam mbir bi sama waay daa mel ni manifestation daa mujjee tas de nu mu fa demee noonu. gars yi de gars yi de. ba ah? gars yi ñoo ñëw pour yàq manifestation ko doon wax sànq ñun lii suñu image quoi ñoom ah, ñun ñun ñun ñu xam ñun saa mhm. ñun liggéey lañ xam ak jaamu yàlla. Uh-huh. comprendre nga ak rek ay affaire mais ñun tamit ñu ay xeex ay xuloo. ñun suñu zone jàngaluñu ñii ñoom dañoo violent ñun violent wuñu. lan moo indi problème bi exactement. ah mais saa <laughs> waay parce que lii day déranger loolu la rek. mais li ñu wane ay xalifa si ñoo leen yebal est-ce que loolu tamit da nga da nga kii. mais mais ñoom loolu lañ sol ñoom ñoo sol ay t-shirt xalifa. donc c'est c'est pas compliqué quoi ñii bañ a dégg soo ko yee moo leen. ay t-shirt xalifa Sall lañ sol. Mhm. soo ko yee bi dañuy bañ a dégg. moo leen déranger réew mi Sonko ko moom ku ko bañ ñun dañ lay dóor ba nga bëgg a dee. amatu dara ñoo ñëw nañ fii. Mhm. provoqué nañ dóor nañu pompe à gaz. provoqué nañu dóor nañu pompe à gaz def nañ lu nekk ñu taxaw jàpp si ñaambur euh, leader yi fi nekkoon si biir si ñun di ñu wax dal leen ñuy dal ñu jékki-jékki bëgg a euh, bëgg a bëgg a exagérer pompe à gaz génnee nañ ko fi. génnee nañ fi paaka ñaar yëpp génnee nañ ko fi ñu leen di gis waa Khalifa Sall yi ñoo leen génnee te xoolal ma lu may wax nëb ma dara Barthélémy Dias moo nekk si ginnaaw lii Barthélemy Diaz assassin moo nekk ci ginnaaw bi parce que moom rek moo mooy moom it nii Barthélemy Diaz kese moo sañ lii ñun amul li ñu nday daw nag xoola suñ paree nañ ñaar ñun police yi tawuñu gendarmerie yi ah, ñun ak ñam mars 2021 ñoo fi nekkoon ñun nokk leen ñun nokkaat leen ñoom ñoo ñu tooñ billaahi kitaab ñoo ñu tooñ fii lañu fekk seen waa ji wax ba pare ñu commencé di door ay ay ay lii njëkk nañu fekkee di dañuy jéem a pompe à gaz ñu dóor ñu dóor benn ñu yor benn benn pompe lañ dóor fii nii buñ buñ benn pompe ñun ñëpp ñu Sonko ku nekk mantul wax dem ba ba affaire ñu commencé waal laaluñu leen ñu commencé dem ba seen waaj wax ñu commencé jël bomb jël seen bant di dóor di dóor nit ñi waxuma policier ñëw di deen jàppale di rawale di dóor kenn ay <laughs> bal avalanche wax ji mënu neex Khalifa tooñ dañuy dañuy ay booy te duñ ñemee ñëw manifestation xoolal li nga yarale da ngay ñëw ci manifestation bi moo gën ngay jël ay diis bandi di leen yabal parce que ñi nga yabal mënuñoo affronter mbooloo mi bu fekkee góor nga suñu wooteetul lu mel nii yow yaa war a ñëw dëggal sa bopp mais mënoo toog sa kër fay ay diis booy ñu ñëw ñu dàq leen ñu dem booy yi ñuy yaral nag ñooñu amuñu ay mbokk amuñu ndey amuñu baay mbooloo mu toll nii ñu lay yaral ngay dugg ci ay kii loolu yaa ngi hypothéquer sa àdduna Barthélémy Dias Barthélémy Dias yow la ñuy waxal boo amee courage ne yaay maire de Dakar opposant nga bokk bu ñu woowee manifestation da ngay dëggal sa bopp nga ñëw mais mënoo ba pare naan da ngay yabali bandi terrain bi Sonko moo ko moom. Sénégal Sonko moo ko moom. Sonko moo moom fii. Khalifa dootoo campagne. Khalifa dootoo campagne. Barthélémy Dias Barthélémy Dias moo moo leen di booy booy agressé moo leen di booy Barthélémy Dias booy agressé sama grand yow ñoo ko yàqal da si xob ñoo ko yàqal bu ko mu gën a leer booy grand yow booy Barthélémy Dias Barthélémy Dias moo la yónni ok. voilà mu gënoon lee peut-être mu jaas mu yàq xew peut-être mu jaas. merci en tout cas li fi xew tey ñaaw na trop ñaaw na trop waaw li fi xew ñaaw na trop parce que dañu woote pour xeex li nga xamante ni moom la président Macky Sall def muy randal suñu ay élection ñu koy exiger pour mu indil ñu suñ ay élection ñu woote ngir loolu ci jàmm rek nag waxtaan wi tàmbali ñuy dox ci jàmm ak salaam mais li fi xew nii lu ñaaw la ñu jekki-jekki comme niñ ko waxee waa kër Khalifa Sall yi la parce que moom lañ revendiqué te nëbbuñu ko ñoom di ko wax carrément di sànni ay xeer ba tas mbooloo mi nii lu ñaaw la dama jàpp ne nag bu fekkee ne opposition bi moo leen yitteel ñoom dañoo taxaw pour opposer benn adversaire lañ am muy président Macky Sall mais amuñu adversaire pour euh, ah, Ousmane Sonko nii Malick Gakou nii keneen voilà li loolu daal moom lañ doon moom lañ doon wax wasalaam. dafa mel ni boo yaa ngi noonu di xeexaat gaa yaa ngi noonu. ñoo ngi noonu ci terrain bi di xeexaat ñun nag jéggi nañ nga gis problème am fi gars yi jàppande yi commencé am. lan lan lan la demee waaye ñun dañoo ñëw fii sept personnes lañu. sept personnes lañu Barthélemy moo leen poussé pour ñu nekk ñu ngi a yàqante suñu xeex moo xeex moo fi am waa Xalifa Sall yi gars yi ñu ngi fii di xeex xeex bu métti ndeysaan lan lan lan moo xew lan moo xew gars yi booy yaa ngi simile booy yaa ngi yuuxu booy yaa ngi yuuxu ne dàq leen gaay booy yaa ngi yuuxu booy yaa ngi yuuxu booy yaa ngi yuuxu booy yaa ngi doon bu métti moo fi amoon la liy problème bi liy problème bi. Barthélémy Dias moo envoyé ay booyam ndaw di sànni ay xeer. fan noonu Barthélémy Dias fii si biir bi dinañ topp seen lëkkal dañuy. non non bu saa problème bi nu mu demee grand nu mu demee. problème bi nu mu demee c'est simple. waaw lan la yees ce qui s'est passé. ay nit ñu pour se battre pour leur démocratie. Ils ont instrumentalisé des jeunes, ils ont donné des armes. On mhm. s'y témoigne, j'ai vu des jeunes qui ont brandi mhm. des jeunes blancs. Ah ils ont brandi Ils ont volé on a tout pour éviter ce qui s'est passé là. nous ont poussés à bout. Vous êtes témoins des faits. Relatez ce qui s'est passé. tout le monde sache qui, est, qui sont les violents. que tout le monde sache qui les violents. Nous, gens de Pastef, on n'est pas violents. Nous, gens de Pastef, on n'est pas violents. Que ça soit très clair. C'est une vérité aux c'est pas vrai. Une manifestation qui est autorisée, mhm. si on a vu des gens, des groupes qui viennent nous attaquer, très sincèrement, moi je me dis que c'est quelque chose à, qui est à